حمد سليما بصرفي عن مسياتي كيما تقود سمامي لرثياتي حمد سليما بصرفي عن مسياتي كيما تقود jërëjëf Serigne bu Bousso kon waxtaan wi leer na lool indil nga cosaan li nga xamante ni nii moo tax soxna si nga xamante ni moom la ñuy màggal tey ñu denc ko fii ci Porokhane ndax dëkk la boo xamante ni nii cosaan la yàgg na lool. kon nag ginnaaw bi ñu bàyyi ko ci loolu nag dañuy dugg nag ci màggal bi indil leen nag li nga xamante ne nii moom mooy ziar yi fa ñuy njëkk a ziar nag di barabu soxna si ndax moo waral bis mi moo waral nit ñi daje fi bi ñu agsee ci barab bi nag gis nañ ni mbooloo mi. foo ko nattu weesu na ko ndax képp koo xamante ne ñëw nga ci bis bi lii sa yitte ju mag ji jiitu mooy siyaara barab bi ñaan fa sa soxla ñaan fa li nga bëgg ngir yàlla suñu borom mën la ko defal ni nga ko sàkkoo kon ñoo ngi noonu ci rang yi di rangu góor ñi di rangu jigéen ñi dale fu sori ngir rek kenn ku ci nekk am yitte am pas-pas ngir agsi ci barab bii kon bi ñu agsee foofu itam def nañ fa ay commentaire am nañ fi lu ñu fa jël ci ay interview ay waxtaan laaj leen seen yëg ci bés bi kon loolu lañ leen bëgg a indil muy ziyaara barab bi nga xamante ne nii mooy barabu soxna si incha allah وما مواهقها خير القيانات ليست لي سب إلا قد أرت كتارا من بعدي وتداري بالمكادات ولا ترن فإلى أثقلت درارا في وتنمر حتما بالمعونات فعدت عنها إلى ما الله يدخلني به جنانا وافورا وفيات حن الخوان اللوات لا تكافئها سلمى وهند وليلى في القريدات هن القواني اللواتي لا يفوز بها إلا الذي استان بالتقوى بطاعات هن القواني اللواتي الدامى بزاف ah, بما لها من doon liggéeyal Mamor Anta Sali ba ba làq ngërëmam wàcc liggéey ñu bàyyi ko fii fii nag liñ fi wax te sëñ Mamadou Lamine Bara Mbacke waxoon ko rek Euh, démb ci bi nga xamante ne nii ñëw na fi di ziare wax na fii de mooy barab bi nga xamante ne nii sëriñ bu mag bi ne nee na boo fi ne jàng ma fekk la fi te lu fi waay fas lu fi waay bëgg mën nga ko fee am ndax euh, liggéeyal sëriñ tubaa fii la ko soxna si doon defee kon nag ba tey mu wàcc liggéey ñu di ko fàttaliku di ko ñaanal kon ñu nekk fii ci barab bi di leen indil ziar bi nga xamante ne ni nag moom la mbokki taalibe yi di saare barab bi muy góor ñi muy jigéen ñi muy mag ñi muy ndaw ñi kenn ku ci nekk yaa ngi raj rajloo rang yu gudd yéen a ngi koy gis ñu ngi dalee fu di ñëw di euh, ngir rek ziar rangu góor ñi ak rangu jigéen ñi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi ànd ak sa mbooloo ñëw ngir siyaare soxna su mag bu tedd sii nga xamante ni nii euh, moom mooy soxna si jëkk ki nga xamante ne nii moo am lii ci biir diine lislaam mel na ni lii bu ñu ko doon wër ci diine lislaam dana dana tumuranke jigéen joo xamante ne nii ñu ngi koy fàttaliku mboolem góor ñi jigéen ñi mag ndaw ñëpp dikk di ko fàttaliku si loolu liggéey bu rëy la bu am solo boo xamante ne nii euh, moom rek moo ko am kon fii la ñu nekk ci barab bi kon ci kanam tuuti ñu indi leen yeneen waxtaan yi nga xamante bëgg nañ ko indil incha allah. yaa ngi fii maa ngi fii ci barabu waaw maa ngi fii ci barabu soxna Diarra Omar Mbaye waaw ñoo ngi leen euh, Touba Touba Daaru Minam xanaa sant bu baax a baax am ànd ak xol bu sedd guy ndax soxna si dafa doon jëmm joo xam ni ñëpp ko war a màggal si ñëpp war a ñëw ngir ngir jëmmam eh, bisam bii ndax lépp loo gis rek soxna see ko waral soxna si moo ñu indil ak texe àdduna ak alaaxira kon ñoo ngi koy ziyaare ñoo ngi koy sant di ko gërëm di ñaan yal na suñu borom may ñu gudd fan ak wér mboolem mboolem doomu aadama yi mboolem képp koo xam ne ñëw na ci barab bii rek yàlla na suñu borom defal faju aajo biir ak biiti wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. barke borom. ñu ngi ah, xanaa yëg nag euh, xam ne maam jaara dugg na sama xol lool ñu tuddee nag ma ma ci lool ak bis waaw. di euh, xanaa na fas yéene roy ci moom rek waaw di di jaar jaaram di ko xool di ko fas yéene di ko jëfee di ko waxee na waaw. لرب لا نذير له foofu ba tey ci wàllu ziar bi ci barab bi waxtaan nañu ak daayira bi nga xamante ne nii ñoo yore wàllu liggéey bi ndax ndonga tarbiya yi nga xamante ne nii yëpp dañoo jaar ci daara sëñ Muntaqa ak sëñ Moustapha Bassirou ñoom ñëpp dañoo dajale ci benn daayira di taxawu liggéey bi nga xamante ne nii ziar yëpp ñoo koy taxawu ñooy taxawu jumaa ji itam ci ziar yi ñooy taxawu teen ba ci rang yi ñooy taxawu itam kër sëñ Tubaa gi ci berne gan yi ak taxawu leen loolu lépp ñoom ñoo koy taxaw euh, jël nañ kenn ci ñoom nag sëriñ Muntaqa Silla mu indi ñu ay leeral ci seenub liggéey ci mu toll ak nañu koy defee kon ñu déglu sëriñ Muntaqa Silla ci leeral yi. liggéey bi sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci laaj bi di ci sawar ci maanaam war a tontu ci loolu ndax liggéey bi ñu ngi ko tàmbali euh, boobaa léegi mi ngi toll ci ñetti at jëm ñeent. nga xam ne daayira bi ñi sëriñ bi yaraloon boppam. Ah, ci daara boppam di tërbiyee leen di yar leen doon leen jàngal ñoo dajewaat fi bu ñu wàccee ne li nga xam ne moom la sëriñ bi fondation woon pour ñu bokk ndey bokk baay gëm diine ak lislaam liggéey sëriñ Touba ñoo dajewaat fii booloowaat fas yéene fondation sëriñ boobu mu gën jëm kanam ci li jëkk ci liggéey bi nag mooy maam wàllu daara alxuraan bi nga xam ne moom la sëriñ Touba gënoon a bëgg ndax ci la bëggu sëriñ Mountakha Bassirou jëm lu mu mën a am jàngale xamle yar li jëm ci suñu borom jëm ci Serigne Touba moo ko ñor moo tax bi jógee ñu tàmbale ci loolu rek bi ñu ko formé nag ñu ne mbooloo nag fokk ñu am lu leen téye nañu góorgóorlu di def ay cotisation yoo xam ne ay àllarba yoo xam ne danañ ko ci dajale 6 mois yu jot ñu man ko dajale jëbal ko sëriñ bi dimbale ko ci daara yi jàngal Alxuraan ak xam-xam maanaam mu jëm ci diggantale ak dund ay saabu ñu ñuy sangoo ay sijaada yi ñu jullee ak lu wàllu daal loo xam ne mooy doxal daara ji daal ci kaw loolu itam sëriñ bi itam bi màggalu poroxaan di ñëwee dugg ci loxoom moom wuutu magam ju baax yooyu di Cheikh Mouhamadou Moustapha Bassirou di jàmbaaru lislaam joo xam ne ñëpp xam nañ ko ci yoon wi ci liggéey kër sëriñ Touba mu wuutu ko ci mu daan ne nag yéen bi ngeen ñëwee ba lii sant naaj bu baax gërëm naaj ci dama bëgg am naa liggéey bu rëy boo xam ne yéene naa ko te yéen laa yéene ngeen yoral ma ko di ma ko liggéeyal naa ca anam yu saytul ma ko anam ya ma ko bëggee ndax am naa ci yéen yaakaar moo tax sëriñ bi jox nu liggéey bi saa yu maagal josee dana ñëw